waaw sëñ bi ñu ngi leen fekk fii ci euh, seen tool yi waaw euh, mu mel ni que nawet bi jeex na waaw li ngeen di def nii lan la. gerte la. waaw. nawet bi ren baax na wala baaxul. waaw nawet bi neex na. waaw mais nag dafa dañu gis ne euh, gerte gi dafa oyof. la mooy def loolu. ndox mi ndox mi la. waaw ndox est-ce mën nañu xool li ngeen am. fii nii mooy fan fii ñu dëkk bi ñu ne nii moo tudd nan. Mbiñ Jongol. Mbiñ Jongol. a ngi ci àll bi. supposed waaw dañu gis ne président dem na ci uh, tool yoo xamante ne ni ay tool yu riche yoo xamante ne ni tool yu mucc ayib ndax tool yooyu mun nañ ko méngale ak seen tool yi nii. tool yi. waaw mm-hmm. ah, mën na. waaw mais moom engrais ji la boo gisee mbéy moom engrais la gerte gi day am engrais. dugub bi aussi day am engrais pour mu gën a baax daal kon daal yéen moom baax na daal mhm. maam mbay mi neex na mbay bi am na fu mu metti am na fu mu neexee waaw waaw fan la metti ci ngay eh, ci béy bi la méttee ah. après boo béyee ba pare béy bu si kër ga moom méttaay bi moom da koy fàtte. waaw ah. léegi yéen dégg naa seen programme yu bari yéen a ngi koy programmer après nawet bi. waaw dañ koy préparer avant nawet bi. waaw avant nawet bi. bu ngeen nawetee ba pare ngeen takk si ay soxna. <laughs> man moom maa ngi ñaan yàlla nawet bi bu paase. yalla na usman am ñaare saa waay wuyu. kon ci gette gi si ah. nga fas yéene ut ñaareel. waaw. da ngay bo jaaye ba pare lo ci fas lo fas def. am naa cee liggéey. naa ut samay xar. yafal jaay. yëpp mën na ci ne. do soxna kesse do ci bëna liggéey mën nga cee liggéey. mën ngaa jaay wut sa xar walla nga wut sa nag xam nga ba boo yorul fas nii mën ngaa jël ngooñ mi di jaay. ngooñ bi saaku ñaata la fi mu ne nii. fi mu ne nii xam naa ay 1500 lay mën a nekk nag. Hmm. mais bu demee ba xoot nag day dem ba ay 2000 ay 3000 3500 5000. kon fii mu nekk nii mu mel ni période bi ñu nekk nii yéen du ngeen soxlaa xaalis. instant di ankay tey soxla xaalis ñu bëgg a jaay dañuy jaay mais pour nga am bu mu gën a saa daa il nga bàyyi ba ba ci biir nawet ba xaw ma ca biir noor ba waaw fala gi dàqe boo ko jaay foofu day mën a génn mais instant yi xam nga ñëpp ñëpp am nañ ngooñ <laughs> ñëpp Euh, maam Koor euh, mu mel ni ki yow euh, liggéey bi ngay def nii ñaati at nga ko def. liggéey bi liggéey bi moom dëgg-dëgg moom xaw naa yàgg ci nag tuuti <laughs> waaw. ñaati at nga si def. xam naa ne moom uppal naa ci moom dix ans moom. dix an waaw. moom rek nga xam. waaw mbéy bi rek rek laa xam moom. lan mooy avantage maanaam njëriñ bi parce que dafa mel ni yéen ñetti weer ngeen di liggéey noppalaku ñaati weer. ñoo ngi liggéey te bu ñu commencé liggéey si nawet bi. trois mois la ñuy béy après bu paasee nañu noppaliku ay neuf mois yooyu door a duggaat ci nawet bi. seen lekk ak seen naan nan lay demee fan ngeen di jëlee xaalis. xaalis bi xanaa rek di foraatu rek waaw. léegi nag li nga xamante ne ni mooy euh, mbay mi euh, nga toog. jurom ñenti wër nga noppalako légui dépenser fa lay joggé li nga liggé da dang koy lek mu jeex wala day du jeex non bu nekkee nor bi mom mën nga dem comme ça fatik yoy bu fekkee né mom borop saret bé nak Ousmane mën na takk saretam di dem fatik di passage di yóbbu ay leen leneen di koy fay bu te bu ko déwé mu di ko lek lépp muy mu commencé di denc di xaar nawet bi ñew da dia mu commencé baye nak ki bi ñew nawet wi. waaw léegi euh, Ousmane waaw mu ne yow dangay dem léeg lekk dangay def beneen liggéey yow. waaw may def beneen liggéey. waaw si saret moom day liggéey lépp. waaw ku ci soxla mën naa ñëw nga yóbbu ko mën naa boobu lu suuf mu nga mën naa jëli yeneen ak yeneen. bu ngeen liggéeyee ngeen denc ko. dina len meuna dundal ba nawet bi ñëwaat ga man na man na ne dugub bi instant yi am na ñu ko mën nak mais am na ñoo xam seen dugub du ko jot am na ñoo xam ne nag instant yi mën nañoo commencer di lek ci liñ gop ba dewen heure yi déwén te day fekk sax mo foofu ba leen mhm. am na ñoo xam ne dañuy dañuy dañuy fekkante dal waaw dugub bi day fekkante waaw kon mën nañu wax ne li moy bay dunde wala moy bay dunde xam nga instant yi ki kii maam kon bo xalaatee ne mom instant yi dugubam mënu mënu dem ba ca nayit bi passé mom mën na jaay ci gerte gi dolli ci dugub da ay quelques saak dugub ak quelques saak mbokk mom mbokk mom mom moy moy moy gunge dugup gi waaw mo koy moo koy gën siwal daal mhm. léegi ñun ñu gis ne waa Ndakaaru ñoom euh, dañuy euh, nekk Ndakaaru mais dañu am ay jafe-jafe yow noo gisee waa Ndakaaru ak waa dëkk bi ñen ñoo gën a neexle. ah bokkut parce fii ak Ndakaaru moom bokkul fii ñun ci ñaay bi lañ ne te foofu teeru la waaw loo bëgg a lekk da koy jënd fii nii xam nga dund bi tey metti buka jendi reer buka jëndi ndekki buka jëndi añ yooyu ya, yëpp da ciy metti fii moom bu la neexee sax sim cere ji <laughs> añ ci <laughs> wallaale kañ nga Dakar man daaw jéeg daaw jéeg laa fa gëj maam Kor kañ nga gëj Dakar kan man మనకై ఇదవి నాకై బొబ్బలిగి ముసు మాలిం దక బొబ్బలిగి ముసు మాలిం దక వావ్ bàyyi li nga wax waaye Ousmane ah ah تلم صدمت في اك دكار باس بنياتا لا في اك Dakar, 1000 فرانك Hein? 1000 فرانك <laughs> eh yow kon Allah bu lëndëm bi. mosoo ko génne mosuma ko paase Hein? mosuma ko paase Nani? ne mosuma ñaata at nga am. kan maa ngi 27. 27 ans. waaw ñaar fukki at ak juróom-ñaar mosoo génne fii. déedéet. ku ku la génnee fii nga dem. fan fii. ku la yóbbu nga dem. ah bu fekkee ne moom dina ta bu fekkee ne moom bu ma demee ma am leneen liggéey moom kon ma dem. waaye bugg nga dem découvrir Dakar gis Dakar. waaw bëgg naa dem foofu xool Dakar nu mu mel ak nu mu bindoo ma mën a xam lépp foofu bu ko defee ah nawet bi moom mën ñu ko bàyyi moom nawet bi fu mu jotee ma ñib si bàyyi foofu ma ñëw béy si. est rabana li nga wax yéeme na. waaw euh, kon euh, bokk internet yi nga xamante ne ni euh, yéen a ngi seetaan Sénégal TV si seen émission Bay Dundé tey nag ñu ngi ci benn dëkk bu ñuy wax Mbine Ndiongol ñu fekk fii lu doy lu yéeme loo xamante ne ni lu extraordinaire lañ ko mun a wax. Euh, ndaxkat kat euh, diggante file ak ndakaaru mu mel ni que ñeent euh, ñaari téeméer moom moo koy paas waaye waa ji ñaar fukki atam ak li nga xamante ne ni mooy juróom-ñaar mu ngi si waaye mosul génne fi nga xamante ne ni mooy fii donc moom li nga xamante ne ni mooy li mu am muy àllam bi mu ngi si lekk mu ngi si naan mu ngi ciy dund mu ngi si tamit di jëriñu di leen fàttali rek ne leen wax nañu wax bu am solo ñoom dinañu ndekki dinañu añ dinañu reer seede yàlla bu dee si ñun dé lool lañuy wax alors te euh, ensuite ci euh, ñetti weer kessé hein ah, ñu bay ci noppalaku juroom ñenti weer denc ci lo xamante dañ ci lek ba dewen bi ñëwaat ñun ñu nekk dakaru di ci di daw di daanu di jokk di luyas di nekk si ay difficultés yu doy waar ci Ndakaaru euh, est-ce que it's not time est-ce que jotul ñu think about ñu xalaat si loolu léeg-léeg nga gis koo xamante ne ni ay luyaas daf koy sonal mu yéeg ak di wàcc jafe-jafe bu nekk mu daj ko foofu mu dem ba mel ni que dafa pauvre dafa ñàkk dina fay ko téeméeri junni dëkk si villa bu rafet bu rafet di korkoral lekk bi ak naan bi fay courant fay ndox fay téléphone euh, fay yu bari nga dem ba bo bu xaalis bu ñëwee ni rek da fay naawaat immédiatement nga nekk si loolu nekk si loolu nekk si loolu bu retraité amuloo foo dëkk liggéeyoon nga sa àddina bi yëpp euh, euh, yi bay dunde mu ngi fii tey si fu ñuy wax euh, nan la tuddati sax fii nit njongol euh, ma bëgg rek ngeen wax ma si